jërë ngeen jëf mbokk yi ñu suivre saa su nekk sur la BP Actu ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal tey mardi 25 mai 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci xibaaru revue de presse dañ koy daal di ubbee ak journal Libération mu daal di xëy di fësal ci xëtam gu njëkk Pointe Sarène nekk ak avion boo xamante ni suñu njiitum réew moo ko jundoon ci atum 2019 ba suñu joon yàlla tey jii ñu jox ñu ak délai. Euh, ci mois de juillet bi pour daal di koy euh, livrer ci réewum Sénégal déjà nag daal di nañ euh, causé coow lu bare bare bari ñenn ni ñoo ngi wax suñu njiitum réew ak bor yi nga xamante ni amee nañ ko lépp mu daal di dem di xalaat ab benn avion du ko jënd ba tax na daal opposition bi actuellement ñoo ngi yëkkati seen ak kàddu di wax ba tey ci journal Libération la ñuy daal di desati ak yéen 50 kilogrammes de chanvre indien la waa douane daal di teg loxo bañ ko tegee loxo nag ñaari militaire la ñu gis ni ci cappaandaw trafic boobee kenn ki mi ngi nekk caporal chef di wuyoo tuturu Cheikh Ahmed tiijaan Ndiaye keneen ki di wuyoo tuturu Maxu Jaxate nekk ab soldat de première classe ñoom ñaar lañu daal di intercepté en flagrant délit euh, ci li nga xamante ni moom moo di wàllum drogue bi gis nañu tamit dañ koy euh, transporté euh, ci benn véhicule particulier lañ ko defoon de marque Pajero 406 actuellement ñoo ngi ca loxol yoon déféré nañ leen au parquet. série de manifestation yi nga xamante ni gis nañ ko ci réew ma Sénégal ba ca jiitu woon wàllum lislaam soobee ko ginnaaw ba ñuy fitnaal waa Palestine boobaak léegi nag képp kuy musulman ci réewum Sénégal wala ñu ci ëpp def nañu euh, seen descente sur le terrain fësal seen nakar ak seen tiis euh, gis nañu nag euh, keroog ci dimanche bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy xeex ci wàllum góor jigéen créé nañu ab amal nañu benn manifestation Sénégal yëpp daal di génn nee nañu du tey du suba du ginnaaw suba àdduna du neex ñu may yoon bor euh, góor jigéen ci réew ma Sénégal euh, ba tax na nag li nga xamante ni moom moo di pratique boobu dañoo sax euh, joxe ndigal ngir ñu yor wàllum justice daal di koy criminaliser ndax amul lenn loo xamante ni rek gën na koo yées. bu ko defee ñu daal di jàll ak yéen ci journalu populaire populaire ba tey daal di fësal avion bi nga xamante ni moom la suñu ju njuutum réew daal di jënd accès gutt waaye mi ngi ci zone de turbulence ndax gis nañu coow lu bari bi nga xamante ni moo ko war ndax ay milliards yu baree baree bari te takku moom la ko ko suñu njiitum réew jëndee woon ci euh, mois de juin atum 2019 actuellement nag nee nañu le 16 juillet bi ci euh, atum 2021 bi ñu nekk lañ ko fa yéene livré waaye joxe na ay justification euh, pour que ñi nga xamante ne ñoom ñoo féetee ci gouvernement bi ñu mën a nekk à l'aise ci li nga xamante ni moom moo di seen ay voyage d'affaires ak leneen lu lu méngoo ak gouvernement sénégalais élection maire yi mi ngi waaj ñëw ba tax na kii nii di Seydou Gueye nag jamono ji mi ngi def lu mu mën ak lu mu mënul ngir ñu jox ko li nga xamante ni moom moo di maire bu Médina daal dinay affiché li nga xamante ni moom moo di ay ambition ak ban plan la ngir mën a jël Médina bi waaye tamit yan ambition la am ngir mën a jëlee Médina ci lëndëm indi ko euh, ci leer euh, soutien ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekkoon euh, ci ginnaaw Macky Sall démb ak bërki démb dañoo fas yéene taxawal benn mouvement bu ñu woowee m pouvoir ngir rek lenn du lenn lu dul soutenir ki nga xamante ni moom moo di njiitum réew mi waaye tamit écarté waat képp koo xamante ni da nga jur ngir euh, tuumaal leen ki nga xamante ni nag moom moo di Ousmane Sonko instant bi nit ñi inquiété wu nañu loolu ci li nga xamante ni moom moo di wàllum santeem ak jëmmam ndax gis nañ ñi Ousmane Sonko ginnaaw ba mu amalee ab malaise fële na lee ci diwaanu Bignona euh, photo mi mujj yi nga xamante ni dafa génn nag Ousmane Sonko da cee jeex tàkk tàkk ba tax na journal populaire daal daal nay samp ab laa ci nee na ba xam jotul nu ñu ñuy Euh, saytu wérgu yaramu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk président euh, candidat à la présidentielle wala sax ñu leen di taxawu bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo di seen wérgu yaram euh, jox leen lu ni docteur wala lu leen di mën a suivre. bu ko defee ñu daal di jàll ak yéen ci journalu l' observateur l' observateur daal di xëy ak ñun ci xëtam gu njëkk ba tey avion bi nga xamante ni moom moo waral coow bi ci réew mu Sénégal mu nekk ab appareil boo xamante ne suñu njiitum réew nee na da koo jënd ci budget du ministère des forces armées. Euh, ba tax na nag euh, coût bi estimé nañ ko à des milliards de francs CFA directive yi nga xamante ni moom la ci euh, suñu njiitum réew joxe mi ngi à la page 3 ci journal bu l'observateur kawteefu affaire de mœurs ab benn waaye copinam da ko bàyyi daal di sëy ak keneen naka noonee nag la daal di enlever soxna si lu tollu ci guddi guddik lëmb daal di koy sàkku ba tax na daal actuellement jamono ji ñuy wax yenn soxna sama nga ànd nag détresse nakar ak tiis lu muy wax borom këram gis tamit nag woo na euh, ki nga xamante ni moom moo di sëriñam euh, ci benn téléphone bi nga xamante ni ab commandant de la brigade moom moo ko moom. waaye li nga xamante ni moom moo occupé réseaux sociaux yi démb ba suñu joon yàlla tey jii nekk allumette estamipol nekk ay brin d'allumette yoo xamante ni gis nañu soxna si ni mu ko defee euh, publicité ci vidéo bi au début dañoo yaakaaroon ni ay allumette yu bees la yu ñu waroon indi sur le marché nag te ay allumette mystique la ñu gis ci rose gris ak beneen couleur soxna si di joxe. ay directive ni da ngay jël lu toll ci sept brin nga daal di koy taalanoo yëpp ba mu tàkk nga ñaan si sa soxla daal di yeew sa borom kër wala sa copain ci li nga xamante ni moom moo di tàkk-tàkk boobee boo paree nga daal di koy dugal ci ndox mu fay waa ji da topp ni mu ni xaj ak muus ni xaj di toppee muus ba tax na nag démb ak léegi coow li nga xamante ni almet yooyu di jar 7500 euh, francs yéen na ko ci réewum Sénégal ñu ci bari daal dinañ ci joxe seen xalaat waaye journal l'observateur daal dina koy yaatal daal di gis ab benn psychologue bu ñu woowee Khalifa Ababacar Diagne moom nag jàpp na ni ñii dañuy euh, utiliser fragilité euh, jigéen ñi ndax euh, gis nañ ni ñu ci bari dañoo am ay problème de couple ñu ci bari seen góor mi ngi leen di bàyyi di takk beneen soxna wala seen copain mi ngi leen di bàyyi di takk beneen jabar ñu gis ni loolu noonu dafa nekk ab situation bu bari ci réewum Sénégal looloo tax rek soxna soosee di ci profito waaye képp ko jënd rek jàppal ne yaa ngi nax sa bopp wala yaa ngi sànni sa xaalis nii di Taib Socé nag daal dina koy indi ci wàllum religion di yëgle ni almet yooyee mystique la almet yooyee dafa nekk loo xamante ni dafa xaram suñu boroom daal dina koy jéppi képp koo xamante ni da nga ko jënd yaakaar ne di nga ci mën a noot sa góor non seulement yaa ngi nax sa bopp waaye bis boo ko utiliser rek jàppal ni am nga lay boo xamante ni suñu borom di la ko jéggal muy fii di fi ñu jëm ba tax na daal mi ngi prêter waat attention bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo di domaine de la religion nee na almet yooyee aram na ci koo xamante ni rek sa diggante ak sa borom eh, ba tax na dañuy daal di jàll ci wàllum sport ñëw ci journalu record li nga xamante ni moom moo di CAN bi socio bi eh, Sénégal ak Ouganda tase nañu démb Sénégal daal di leen di doox 5-1 daal di koy tàmbale mu nekk nag ab eh, antam boo xamante ni kontaan nañ ci lool di ñaan yàlla mu daal di jëm ca kanam li nga xamante ni nag moom moo doxoon démb ci diggante Laysé Douane ak Mazalek Mazalek daal di leen di doox 86 daal ñi nañu euh, ci li nga xamante ni moom moo di cadre bi judo 42e championnat d'Afrique Sénégal daal di jël li nga xamante ni moom moo di sixième place waaye sixième place boo xamante ni dafa xaw a décevante ndax yaakaaroon nañu Sénégal waroon naa gën a mën a jëm ca kanam. bu ñu demee ca diwaanu Europe Liverpool ak waa Sadio Mané daal di nañuy amal benn duble contre cristal Palace ba tax na permettre na leen ñu daal di amaat beneen euh, cinquième rang ci li nga xamante ni moom moo di euh, c bi championnat d'Europe ba tey Atlético moom moo nekk roi ca diwaanu Espagne waaye Lille tamit mu ngay gën a reñ ca diwaanu France amico yi nag liste bi euh, tey jii ci talaata bi la ko Aliou Cissé fas yéene fësal wax yan Lions ñooy dem janoo ak waa Zambie ak ak Cap Vert euh, Coupe CAF Jaraaf Coton Sport de 1 la daal di mujjee game over pour les Médinois fas yéen daal di nañ fay jaaree toog ci li nga xamante ni moom moo di compétition bi waaye Ligue 1 fii nii ci réewum Sénégal Teungueth FC ak Jaraaf ñoom ñoo daal di cartonné euh, waa Pikine daal di chuté. ñu daal di koy tëjee ak li nga xamante ni moom moo di journal suñu làmb première face to face ba doxoon ci diggante rëg-rëg ak guy gi dimanche lañ ko amaloon ba tax na rëg-rëg moom nee na buñ ko joxee guy gi dix mu daal di koy di daan dix fois te du tëdd ba xalaat mukk ni guy gi dina am ndam ci kawam guy gi nag comme niñ ko xalaatee woon rek nee na bëgg na ko dóor ba mu sonn soo koo daan dayir sax daal dina koy proposé lu toll ci cinq minutes de bagarre laataa mu koy daan ginnaaw ba mu paree ci face to bi Italie fële ne la ci diwaanu États-Unis d'Amérique ngir préparer combat am ak lu wértu wut daal mooy Gris 2 bi ñu doon xaar ci seen face to face démb gis nañ ko ba mu jeex a tàkk ci ñaari mbër yi ba tey bu ñuy wax ci wàllum face to face ci làmb ki nga xamante ni moom moo di Gamou Gueye ak sox ñoom ñaax tamit nag avant seen duel bi ñuy xaaree ni le 6 juin incha allah daal di nañuy amal li nga xamante ni moom moo di seen face to face drapeau chef de l'État Matar Ba au CRG de Fatick lu toll ci vingt cinq survêtement ak cinq cent 500000 francs CFA lañ daal di teg foofee Dakar euh, ki nga xamante ni moom moo di géotechnique dégagé na benn enveloppe boo xamante ni. am na solo loolu ba tax na ba tey journalu suñu laamu daal ne fësal ki nga xamante ni moom moo di Ama Baldé nee na ñu ni Balla Gaye nekkee doomu mbër noonu la nekkee doomu mbër ni Balla Gaye nekkee woon roi des arènes est-ce que Ama Baldé dina ko def ba nekk roi des arènes bu ko defee ñu daal di tolloo ran ci làmb ba tax na nag mbokk yi dafa mel ni lii lañ leen indiloon seen xibaar revue de presse yéen mbokk yi ñu suivre di ñu bëggee saa su nekk sur la BP Actu ñoo ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal yéen dog jàmm jërë ngeen jëf